waaw man débat boobu moom mooy indil. léegi man man bëgguma ci insister débat yooyu moom boo leen ko après on passe à lan. moi je demande même man je demande une chose. bàyyil c'est-à-dire man man indiluma la débat université. débat waxuma la Ousmane euh, Sonko wax na toléré na man démb xam nga man toléré boobu ban ban pour man Ousmane Sonko. c'est mal c'est mal exprimé. c'est mal exprimé xam nga man tolérance bi lan lan la doon wax. Hmm. et démb wax naa ko Moustapha Diakhaté hmm. mais dañuy nekk dans nos quartiers là ñun gis kenn ñu jigéen la. et pourtant il vit paisiblement avec les gens. loolu la loolu la la mës moo si mës a am loolu laa la wax c'est-à-dire man. man man wax boobu intéressé wu ma dama ne mais bu ba bëgg ko extérioriser. ñuy permettre ñuy def ay manifestations publiques bay def ay simulacre de mariage ak yooyu yooyu lañ leen nag yooyu société bii du fi am. mais bref ce qui va se passer mooy lii Ousmane Sonko position du wax naa la la position ku dem ba ni l'Occident vous en ferez une de guerre. mais Amadou yaa ngi. déglu ko à la question bàyyil may ñu non mais defal ndànk <laughs> xam nga yéen la cette propension à vouloir imposer à ce nouveau gouvernement. mais moi je n'impose oui, rien du tout et puis moi je ne débat pas de ces propos de Ousmane Sonko à l'université élection tey on a déposé un projet de loi assemblée. Mm -hmm. assemblée ban la projet bi projet de loi criminalisation bi nanguwuñu sax ñu déposé woon ko déglu ma wax ma la ñun bi mu fi amee ànd sàmm jikko yi am na groupe bu ko porté à ah. l'assemblée ah. gars yi ni leen duñ ko sax examiner kon ñoom ñu bëgg a dellu si derrière ni dañuy agiter la débat on va vers des élections man bëgguma jiitu le premier ministre mais est-ce que jàpp nga ne dañ ko wala criminaliser dinañ ci yegg non non non bu dinañ ci yegg do du loolu ngeen doon wax choix boo xamante deux mille référendum non xaaral Amadou Amadou xaaral xaaral non xaaral ñu clarifier référendum 2016 ñun dañ ci intég non xaaral dañ ci intégrer leen nouveaux droits ngeen yuuxu fu nekk ngeen ne boo leen voté projet de référendum bi dañuy daganal homosexualité xaaral deux mille législative 2017 vous ramenez le même débat vingt deux nag ngeen nekk coalition avec ànd sar am ànd sa nu mu tudd ànd sàmm jikko yi def ay tournée def ay meeting taxaw place de l'Obélisque ne Macky Sall dafa nekk ci tànku légaliser homosexualité Macky Sall dem na homosexualité kenn légaliser wu ko Ousmane mieux encore Ousmane Sonko mu ne man su ma ñëwee l'une des première mesures que je vais prendre bokk na ci criminaliser ma ne la est-ce que yéen a ngi ci posture boobu ba tey xam nga man nee naa la loolu kay laa lay laaj waxal mais je vous dis sur le principe que ni gis nga criminaliser homosexualité bis bu amoon suba ce serait dans l'ordre normal des choses et dans la continuité de nos promesses amul lu ñuy ragal wala lu ñuy jéema parce que li mu wax ku dem ba ne quelque chose dafay nekk fait de guerre débat boobu kenn du ñu ko accuser prendre ses responsabilités devant ce fait de société pour criminaliser ko kooku jàppal ni c'est un débat boo xam ni kenn du ko fi daw kenn du ko ragal et s'il doit être porté il sera porté normalement léegi à l'université léegi nag par contre je vais revenir sur les propos de Ousmane Sonko concernant les relations avec nos nos partenaires traditionnels xam ah, nga ce débat là ne m'intéresse pas. Mm moom na taxaw ci tànku criminalisé. duñ ci jógee mais quand est-ce que.